Thank you plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Amis chers téléspectateurs, bonjour à toutes et tous et bienvenue. Le talent ne suffit pas, à part quelques rares exceptions. Contentement la ñu àndal pour vous accompagner de 11h à 13h. Les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs. Ce n'est pas parce qu'il est difficile qu'on n'ose pas le faire, mais c'est parce qu'on n'ose pas le faire que c'est difficile. mais c'est trop tard. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. <laughs> Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Euh, de soi-même. L'attitude détermine les actions. Les actions déterminent le résultat. Le résultat détermine les modes de vie. Avec les autres, c'est compliqué et ça prend du temps. Chaque fois, Alors tapez haut. Les témoignages réussissent là où les vendeurs échouent. Il sert à rien d'être le meilleur si on est le seul à le savoir. yàlla def ci yow tal bu yàlla tal. sànn ca ma du lundi au jeudi à partir de 11 sur la 2STV. Bravo et merci à toi, le Béninois, l'international, Mr Grégoire. À vous, amis chers téléspectateurs, à tous les Sénégalais du monde entier, de l'Afrique, un peu partout, je vous dis bonjour à toutes et tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver sur cette antenne de la première chaîne de télévision Privé du Sénégal, je sais comment ça a été difficile pour moi d'arriver jusqu'ici aujourd'hui parce que c'était tellement difficile avec les lacrymogènes euh, de gauche à droite en tout cas métti na yoon la woo xam ne yoon wu xat la waaye vu que dañu war a liggéey si euh, dañu war a accompagner leen de 11h à 13h mënuñu woon lu dul bés suñu xol ñëw ànd ak yéen ñi nga xam ni yéen a ngi toog di nu seetaan xam naa ni sax euh, dégg nga dégg nga dégg ñoom tam ña nga toogoon di xaar 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. allo allo allo alors kooku mën na ñëwaat léegi léegi ci 88 628 14 ou 13 ñu gërëm ko ndokkeel ko ziar ko itam màggal ko bari na sénégalais yi toog seen kër waxtu wi euh, di seetaan doon xaarandi seen émission bi nga xam ni c'est la meilleure émission de divertissement au Sénégal ñu itam plaisir lañ ciy àndal waaye ku xool xar kanam yi xam ni xol yi neexul ndax li xew ci réew mi neexul kenn ñu bari tey liggéeyuñu ñu bari tey ñu ngi toog seen kër ñu bari tey bëgg ñu génn boo xoolee tali bi y a pas d'embouteillage y a lakk-lakk yi ak euh, euh, li nga xamante ni tey moo xew ci tali tali bi moo tax euh, euh, nit ñu bari toog seen i biir kër waaye ñu ngi ci euh, ñu ngi koy mettitlu di ka naqurlu bu baax a baax ndax ndax ku sañoon sa réew ba nga dëkk day am jàmm ba ñëpp mën a am jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj boo gisee tax bu ñu nekk en retard c'est parce que tamit li nga xam ne moom moo di tali yembul 88 628 14 13 dañuy jël ki nekk ci ligne bi bonjour salaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay ziar. na naa la. maa la raw kookan la. alors kooku dem na ñi ngi koy gërëm ziar ko euh, euh, màggal ko itam Grégoire euh, à mon arrivée bi may yegg si fii gré maa ngi tombeel ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy sànni benn bus bus tata yi maa ngi ko romb booy ñi ngi koy yàq yàq goo xam ne mënu ma la wax nu mu mel mais mu doon lu tiisan dama tiit man dama tiit honnêtement quand j'ai vu les images je me suis dit non attends yàq goo xamante ni gré chat tatatata eh, actuellement sax am na bu ñu taal donc la moom kenn xamul la 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi ziar. maa ngi delloo ziar. kookan la noo tudd sister. man la Fati. Fati noo def fooy wootee. maa ngi wootee Colom Fall. yaa ngi. Kébémer. Kébémer maa ngi nuyu waa Kébémer noo leen def yéen ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm bu baax. c'est vrai que ni le Sénégal c'est pas seulement Dakar. <laughs> donc moo tax région yi doon xaar waaw nga ne. man dama laa bëgg. maa la raw si sa. ay yow dama numéro laa soxla woon. sama numéro téléphone. waa man mi ay ca ma nga ca Kébémer ñu ngi koy gërëm gré euh, tout à l'heure quand j'ai vu les images dama dama am lu jóge ci man en fait parce que dama di ñun ñi ngi yàq suñu alal en fait. waaye tey bu fekkee ne yi ni yi ni mel gërë dafa am je pense que yenn ci bus tataay yenn ci bus yu mag yi euh, de préférable mënoon nañu ba ñu liggéey quoi bon c'est c'est c'est ma philosophie c'est ce que je pense pour vraiment indi jàmm ndax booy bu ñu ko gisee ak colère bi ñuy àndal euh, mën na jur ay jéyee ak lu ne en tout cas euh, situation bi neexul kenn nee naa la dëkk bi ngi ni selaw waaye foo dem rek ña ngay taal ña ngay taal te loolu wax dëgg yàlla euh, neexut kenn en tout cas leen gunge yéen ci li ngeen bëgg ndaxte xam ngeen ni seen une émission de divertissement donc euh, nous allons essayer vraiment de de d'aider les gens à oublier leurs soucis wala ñu jël ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum kooku dem na ñu ngi koy gërëm tout à l'heure Racky m'a appelé pour ma di Kheucha maa ngi ñëw mais ci VDN bi kenn mënul jaar fépp lañ taal ma ne ko tu retournes chez toi parce que là c'est une situation boo xamante ni c'est déplorable kenn xamatul nooy jaar ko xamatul fooy jaar boo jaaree corniche c'est y a les routes sont barrées bien vrai que ni policiers ils sont partout mais daal difficile na la situation elle est difficile. Alors le 88 10 28 14 ou 13. Ça fait l'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez nous le dire à travers 88 628 14 ou 13. Et euh, j'aimerais bien que tu télécharges le chanson, la chanson véritablement de Suñu Réew la Grégoire. Euh, boobu na nga ko jëlaale ndax am na boo ma proposé les 88 628 14 ou 13. maa ngi ziar Ça va, Nagam Ça va bien et toi Ça va bien. Alhamdulillah. Noo tudd? Omar Niang. Omar Niang foo man Casamance. yaa ngi Casamance ana waa Bignona ak waa Casamance ñu ngi ci jàmm. ñu ci jàmm baax taw feex maa ngi lay ziar mon frère ana Kabi. mi ngi fi rek. ci jàmm ma ngay yëngal. waaw. sama xarit la de war naa ñëw Casamance seet si ko moom moom moom mag laa ah. ren de Bignona incha allah. lool. non damay ñëw waaye Casamance moom foofu ma dugg fa moom ma indaale Grégoire wala ma bàyyi ko fi. ah. ma indaale Grégoire wala ma bàyyi ko fi. non indi ko indaale ko. ah ma indaale ndaama mais damay bañ mu réer seen biir xam nga dafa gàtt. ah. day réer de. ah kon dëru indi de. <laughs> kon di kon dinaa ko fi bàyyi ne te mon frère. waaw. ñi ngi lay gërëm en tout cas di kontaan ci bu baax a baax. allez merci pour l'appel de l'autre côté foofu ca Casamance ñu ne am tam am nañu mbégte bu baax a baax a baax leen yen ñi nga xamante ni euh, yéen a ngi toog seen kër fu ne ci addina du ñu seetaan euh, li waral euh, li ni mel ku ne xam na ni tey ci le procès bi nga xamante ni moom Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moom moo di Mame Mbaye ak seen problème ba ci amoon donc tey la ñu war a joxe verdict peut-être tey dinañ leen juger wu pas on sait pas pour le moment actuellement daal ña nga ca ba toog ñi nga xam ne ñoom ñoo di juge waaye nag ñi ngi ñaan jàmm ñi ngi ñaan loo xamante ni saafara lay doon ci réew mi ndaxte nag re réew mi jàmm rek ci sax te moom la ñuy ñaan te képp koo xam ne sénégalais nga bëgguloo xeex bëgguloo na ndax xamuñu ko tàmmuñu ko kon nag ñi ngi koy ñaan yàlla na ko suñu borom bi def alors euh, on va dé démarrer et quand va démarrer c'est avec des chansons yoo xamante ni ça peut éveiller véritablement euh, ma ñëw ma ñëw ça peut éveiller véritablement la conscience des jeunes et nit ñi toog di seetaan xam li nekkoon ak li réew mi làmboo woon ndax réew mi dafa am ci lu mu làmboo woon donc cette chanson de Aby Ndour j'aimerais bien que vous l'écoutez attentivement euh, pour nous permettre véritablement de de de d'oublier nos soucis et véritablement d'apprendre euh, les mots yi nga xamante ni wax na ko ci si c'est bon à toi Mister Grégoire on écoute Aby Ndour c'est parti. désolé hein désolé <laughs> désolé comme tout le monde j'étais en train de voir ce qui se passe sur les réseaux. Euh, actuellement il y a trois bus qui sont qui ont été calcinés cest yoo xam ni lakk nañu leen ñetti bus yoo xamante ni tey euh, ñoo ko mooma suñu alal la ko qu'on puisse dire suñu alal la ndax euh, ki bëgg dem Géejawaay bëgg a dem Pikine bëgg dem euh, nu ñu koy waxee caaro yi ak fu mu mën a doon yëmbal ak fu mu mën a doon bëgg a voyager dem fu la neex xamal ni tey am nga. loo xamante ni yàqule nga ko mu doon ñetti bus yoo xam ni peut-être dina de ay manquement ci sa euh, euh, euh, ci ci ci ci ci ci ci li la doon yóbbu par exemple tey bu fekkee ni yàq nga ñetti bus yoo xamante ni yow da nga daan taxaw sax pour bus ñëw c'est tout un problème alors réduire nga ñetti yeneen bus sa va être encore beaucoup plus compliqué bu fekkee ni solution am na nañu jéem a wut solution ñu arrêté li ni mel gré ça c'est compliqué là la situation moom c'est tellement compliqué que moi-même j'arrive pas à comprendre j'étais sur les réseaux mais ce que je suis en train de voir c'est autre chose voilà nañu woy peut-être yéen ngeen am ci solution ci 88 628 14 ou 13 ou bien sur le 33 841 23 34 way la woo xamante ni defe naa ne ku ne daal ko dégg ndax way wu morceau bu am solo la euh, ñi ngi ci ñaan jàmm ci suñu réew ndaxte nag euh, wax dëgg yàlla euh, réew mu tàkk moom politique rek ka fiy def <coughs> gis ñu fi leneen lu koy def politique rek politique rek toujours politique mooy tàkkal réew mi yooyu soo dégg ñu ne leen diw ak diw diw diw diw diw xeex fi politique bi rek maintenant c'est compliqué mais bon ainsi va la vie alors leen ci 88 628 14 13 sinon nous allons sant yàlla une chanson euh, xam ne mën nañ ko déglu ci moment yi ñu toll et bu paree nag juste après ça on aura l'occasion véritablement de vous présenter le programme d'aujourd'hui toujours pour calmer un petit peu les esprits alors ñu jël kooku ci 88 628 14 ou bonjour salaamaaleykum. jërëjëf mën nga ñëwaat ci 88 628 14 ou 13 je vous rappelle que euh, nous sommes avec nos partenaires tey xel yee dem xalaat yeeg yëpp alem raison pour laquelle on a même oublié de présenter nos programmes euh, no partenaire partenaires savoir euh, li nga xamante ni euh, moom moo di produit yu baax yi di Plaza Cosmétique nee naa leen muy góor xale ak ndaw mag ak képp koo xam ne bébé nga mën nga ko wutal ci produit Plaza Cosmétique yi nga xamante ni ay lait de corps la maman wan leen ko ay lait de corps la yoo xam ni ku ko utiliser ku ne di nga ci gis. gis sa bopp ndaxte day defar sa yaram taaral ko bu dee mag nga itam dafa am ay produit yow war di utiliser raison pour laquelle ñu indi leen plaza cosmétique ngeen war fa dem euh, commander li ngeen bëgg ñu wan leen ko euh, donc mu ngi noonu ay produits euh, baax na te collagène la comme ni ngeen ko gisee am na ci bu ne boo xamante ni wax dëgg yàlla mën ngeen ko xoolal seen bopp moom moom nga xam ni moom moo di plaza cosmétique alors la ca topp itam xam ngeen ni moom moo di la meilleure des boissons énergisantes du Uber Uber la meilleure des boissons énergisantes pour vous permettre véritablement de vous soulager waaye itam may leen kattan ak doole ca la ngeen di def bu dee da ngay liggéey bu dee dangay bëre bu fekkee ni itam danga nga ne ci néegu sëy moo ci gaaw te ku ko naan ku ne xam ne énergisante la waaye moo am doole te bëri kattan mangoog Uber la meilleure des boissons énergisantes rapprochez-vous sur ces numéros euh, pour ngeen woote ñu mën leen jox ci la meilleure des boissons énergisantes du Uber alors rapidement euh, monsieur Grégoire à toi Safari euh, clip bi dama leen koy may yéen tam toujours pour apaiser si c'est parti. Waouh, waouh, waouh, waouh. J'ai enlevé mes lunettes. Hein. Là, Grégoire, cas bi ça encore beaucoup plus compliqué. C'est vrai que ni peut-être vers la deuxième partie ak actualité Actu Racky Racky elle est chez elle, mais nous allons peut-être peut-être rapport à ce qui se Ñu jël ki ne ci ligne bi sur le 88 628 14 ou 13. Bonjour, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Maa ngi lay ziar. delloo ziar bu frère noo def nakay tey. sant yàlla sant yàlla bu baax. ngi am jàmm. waaye am naa. alhamdulilah fan nga yootee. ah yaya il a il m'avait l'air très sérieux et qui voulait parler de ce qui se passe actuellement Grès je vous rappelle que j'ai vu les images tout comme vous li nit ñi di gis ñu ngi koy gis. alors euh, yéen itam am ngeen ci euh, euh, ay kàddu yu ngeen war a mën a yëkkati jaarale ko ci 88 628 14 13 vers la première partie comme tu l'as si bien dit Gré nous allons essayer de temporiser wan leen yéen ci vidéo clip yi waykat yi ñoom tam comme lii mooy seen rôle way waaye itam vers la deuxième partie ak di dinañ leen indil li ñu jot a gis mu doon ay images yoo xamante ni ça nit ñi ñi ngi koy partager à travers les réseaux c'est compliqué. à voir ndaxte Sénégal lii làmbawu ko euh, maa ngi gis ci VDN bi la fay xew gré c'est tellement compliqué à yeneen bus yeneen oto lii ma gis nii ñu naan dañ koy taal bu ma juumut euh, gisaguma ko tegaguma ci sama bët bu baax euh, buñ ko taalee dina ñaaw lool waaw dina ñaaw lool lool lool mais bon on va essayer de voir en tout cas après vers la deuxième partie ci actu la waaye yéen mën ngeen wéyal ba tey ci 88 628 14 ou 13 ou bien sur le 33 841 23 34 Ablaye Mbaye moom tam am na la mu woyoon jëmale ko ci réew mi laata loolu mën nañ jël ki nekk ci ligne bi sur le 88 628 14 ou 13 bonjour. Euh, lii bu fekkee mi ngi fii wala kan moo fi ne nañ ma jàppale aussi ci ligne bi nit yi mën a dugg normalement euh, mën a wax seen avis ak la xalaat euh, ci li ni mel xew suñu réew doon naqar ak tiis ndaxte tey kenn demul kenn dikkul waaye xeex bi am ci diggante xale yi ak takku yi metti na metti goo xamante ni ku ñëwul te dafa mel ne douze lacrymogènes yi dañ ko yokk parce que man sama bët yi Grégoire du ma la fen bi ma ñëwee bi ma bi ma yëf yi dalee la ma yëg xaw ma lan loolu du kaani kase mbir yi rax naa yokku nañ dose bi lii du kaani kase ah barke alxuraan dafa saf sap sap sap sap sapaaral xam man samay bët dafa sew mi ngi ni gisatu leen ko ndax saf c'est grave mangook ñu wéy ba tey 88 628 14 ou 13 xool leen ligne bi s'il vous plaît ou bien sur le 33 841 23 34 faites doucement également euh, waa rak fan la jaar yéen léeqa <laughs> ilalla waa fan la jaar ba yéen de rakk yi ñëw na gën a gaar jaar fi ma jaar ah da nga mujj jaar noonu ah, boo fa jaar woon doo jàll gis nga boo ñëwee rek policier dañ lay xasee la catatat ay man dëkk rek nag tey laa xam ne am nga fit nag xale jigéen ñëpp a ngi kër ñoom dabaak ñëpp ku ma ci woo mu ne maa ngi nii sama kër yaay ak fii benn la waaye mënu maa génn ma ne ko ah xam nga ñoom ndeysaan ay réew mi ñu ko jaral parce que am na ci ñoo xam ne ils sont pas à Dakar ñu ngi yeneen région yi xamuñu li xew et que ñoom aussi dañuy bëgg préféré de préférable seetaan seen émission donc on peut pas vraiment di leen empêcher li ni mel même bu ciy wax nañ ci wax moo gën a rafet waaye du lu am euh, naqar nga daw bu bànneex ñëwee nga taxaw loolu kenn du ko def waaw 88 628 14 13 salaamaaleykum bonjour. maaleykum salaam. maa ngi lay ziar sista. ki def nag kay tey. dama la woo ba sonn sama crédit léegi mu jeex te sama. crédit ay yow baal ma foo may woo maa ngi lay woowee ba Gambie. yaa ngi fa ah waay waay sama mbokk yi waa maa ngi kontaan de mbokk Gambia. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi cool maa ngi fine de maa ngi ci jàmm bu baax. xacha man dama la bëgg te yàlla tax est-ce que mën naa am sa numéro. ndeysaan amul benn problème ndax yow comme que yàgg nga ci ligne bi bu coupé ñu jox la ko. jërëjëf merci pour la pel kenn néew ma sax sañ-sañ nga tey maa xalla dama ko kii tey dama ko ma léeg-léeg foog ma koy njar njar ko nii di leen wan ni man lépp mën naa ne waaw dama koo njar alors gré euh, Ablaye Mbaye wayam ba moom itam amoon na solo lool nañ ko déglu bàyyi kook sénégale yi ñoom itam raki defe naa ni si sa actu raki war nga mën a gën a jël ay vidéo ndax nag euh, gis naa ci yeneen image yu graaw yoo xam ni war nañ ci mën a waxtaan léegi léegi vers la deuxième partie ndax sénégalais yi itam war nañu am droit gis ko ci 11 13 bi nga xam ne moom moo leen di accompagner monsieur Grégoire à toi let's go. mangook mangook jërëjëf merci beaucoup nag ci li ni mel aski pare nag loolu nga xamante ni moo jëmoon ci euh, procès Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom moo di Mame Mbaye Niang dañu ko daal di renvoyé comme nañu ko defee woon ca ñaareelu yoon ba bi mooy ñetti yoon nag euh, ñuy renvoyé bi les procès peut-être sax dina apaiser la situation parce que ce qui se passe sur la VDN actuellement les gars là j'arrive pas à regarder les images c'est vraiment vraiment autre chose kenn mënu la expliquer se passe tu vois des ñoo xam ni mën nañ sax bokkut sang mën nañu nekk ay mbokk di sànnante xeer donc quand je parle de ça cest dire les forces de l'ordre et les euh, citoyens sénégalais yi nga xamante ni ñooy xeex seen biir dafa metti je vois des choses yoo xam ni xaw ma lan la xaw ma lii lan la c'est compliqué c'est compliqué de voir ça dans notre cher pays le Sénégal c'est compliqué de voir ça c'est tellement compliqué Et on aura l'occasion d'en parler tout de suite ndax on a quelques images par rapport à ça ce qui se passe sur la VDN de voir les policiers ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi xeex bi ñuy xeex jàmmaarloo bi metti na daal en tout cas nañ ko yëgandoo noonu te xam ni procès bi comme que annulé nañu ko ñenn ñi mën nañ dem ñibbi seen i kër bàyyi xeex bi bile dellu nekkaat ci seen activité ñi war a liggéey liggéey parce que tey lii pertement la ñu ci bari tey ibbiwuñ seen place ku leen di jox añ ku leen di jox reer mu ngeen baal ma mais du kenn ci nguur gi wala du kenn koo xamante ni ci li opposition bi koo xam ne mooy yëkkati sa xaalis ni la am demal nga liggéey kon c'est compliqué c'est mais bon on va essayer de voir euh, vu que ni ñu ngi vers la deuxième partie Grégoire on va commencer notre programme parce que nag annulé nañu seen procès donc là ça là ça va apaiser la situation mais ba tey mën nga wéyal ci 88 628 14 13 tous les Sénégalais euh, sont restés euh, ci ligne bi mais bon nañu ambiance nag fàttali fàttali tuuti nag li nga xam ni jot naa xew donc mangook mais Grégoire man de bàyyi nga ni dama juum li ma la yónnee nii. dama ko changé changé waat ko changé wati ko mais bon on va on va comprendre quand même euh, Mangok dañuy dem ci euh, boy euh, comment il s'appelle encore le garçon gis nga xel mi sax dem na nit ñi tiit Mangok en tout cas nañ dem seeti Brandy Monja Brandy Monja gré nañ ko seeti j'ai j'ai le le le truc que j'ai supprimé boobu laa warul woon supprimer gré mais bon on va essayer de de de de de de de de vraiment continuer davantage c'est compliqué dans ma tête de voir tous ces images mais Brandy Mondial vas-y oh Mangok jërëjëf Brandy Manja une jeune fille qui est euh, de l'autre côté euh, qui est d'origine saint-louisienne je l'aime bien euh, parce qu'elle a son propre style et ça c'est c'est vraiment quelque chose à à féliciter féliciter d'avance xale la boo xam ni elle vient de commencer sa carrière mais boo ngeen gisee style am da ngeen koy like ndaxte macha allah elle chante hyper bien l'autre chanson ce garçon il se nomme tout simplement Dan l'unique il est unique de par li nga xamante ni mi ngi nu koy bégalee à travers ses chansons pour votre plaisir toujours unique si c'est bon Mister Gré on peut enchaîner avec lui alors ñu jël ki ne ci ligne ba pare sur le 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum <clears throat> salaam. maa ngi lay ziar. man Gandiol Gandiol laa dëkk benn fan la. ah. nga dëkk benn fan su xëcca laa la wa ma paas la xëcca. waaw waaw. waaw ok lay paas xëcca. ok. allo. allo oui. waaw man la xëcca. waaw. noo def. Ganjool laay wootee man la Marème Fall. waaw Marème Fall waaye borom Ganjool noo def. maa ngi ci jàmm ça va. ba maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm man aussi ça alhamdulilah. am si sa benn fan rek sama benn rak di la bégee. ah ziar. ndeysaan nuyul ma ko. te nee na nga bégal ko yaayam Aïcha Nana Fall. waaw. di bégal ko tata Mariam Fall. waaw. bégal ko moom daal baabu. waaw. bégal ko waa këram yëpp waaw kay. dëgg la nga ni ma kon ñu ko koy bégal ñun ñëpp daal. te ñun ñëpp ñoo ngi lay bégee di la ziar. waaw waaw di la fan quoi yaa ma gën a xam. jeex na yow yow nante nga quoi kontaan naa dégg nga. merci quand même de l'autre côté ca Gandiol ñu ngi leen di nuyu ñoom tam jox leen seen waay on y va avec ce garçon Dan Lunique si c'est bon à toi Grégoire let's go. situation bi rek ba leen ma ne ci cas bi rek nekk di xool rek ma nit doy na waar de gis nga Grégoire ma fekk fa ma toog sama téléphone bi réew mi jaxasoo kenn xamul lan nga war a wax chat tat tat ñi ma yónnee vidéo yi maa ngi koy gis maa ngi koy gis maa ngi koy toppal sama bopp doy na waar nañu marqué pause et juste après on va installer Racky pour en parler peut-être ak ah, am nañ fay ndaw yu ñu war a éviter aussi comme découverte on aura l'occasion ñu xool leen ñoom aussi si c'est bon on marque une page pub et on revient à vous Miss Gré Mangok c'est vraiment compliqué Mangok jërëjëf merci beaucoup Hubert euh, yëkkati ko euh, ñu woyow wax nga dëgg nuyoo guma la sax la mère des boissons euh, énergisantes ak li nga xam ni moom moo di Plaza Cosmétique waaye itam émission bu mag boobu ñuy waajal samedi non yow da la takkal génn taxal noonu rek parce que da nga soj moi moi ay ciao ayca maa ngi lay ziar kontaan ne la nuyu la jox la sa wàccuwaay bien sapé sa va être difficile aujourd'hui pour que nga wàññi sa ah la la non réew mi amul jàmm rek yi. jàmm newul ci réew mi kay <laughs> dañuy jël distance rek. maa <laughs> maa yow moom ci geer lañ mës a nekk donc se pas grave. mais sinon ça se passe ça va très bien et toi. yaa ngi cool maa ngi cool naa la. maa la raw ça fait une maa ngi nii <laughs> bi passé dañ ma tëjoon. <laughs> xamaloon na ngaa leel xam nga ba pare est-ce que xam nga ni leel bi mag Sadio Mané kese ko am ci réew mi. Ah, remarqué woo bi nga yor la yor wax nga dëgg de ca digg boobu bala ne. fii fi lañ eh, eh, démarré di eh, dem. rek musuma xam da nga leel. mais bu ko xeeb de. ah non leel dafa am lu mu de. Ah. lu garaaw laa wërsëg la li dinañ ci ñëw léegi wax ah. am na sujet bu ci indi ayca <laughs> vas maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu waa réew mi ndax xam naa ne tey moom ñëpp a ngi toogee tiit tiitaange ñii a ngi ragal a génn ñii ñoo ngi ci seen kër yi tëju di la wax xëcaa réew mi jaxasoo na torop mm. xam naa ni xam nga ci dara gis naa léegi léegi sa vidéo bi ngay génn mm. alors bu dee suñu actualité yi euh, pare na euh, Grégoire mën nga ñu lancer suñu image yi rek après ñu débattre ko. ma nga ko mën na ko lancer Grégoire ñu daal di tàmbali ak euh, sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi toog di ñu seetaan. Mhm. donc lii nag procès Ousmane Sonko la ak Mame Mbaye Niang mhm. procès bi dañ ko mujj suspendre parce que xëcha mhm. gars yaa ngi génn ci réew mi di taal ay pneus sur la VDN. ñoo ngi taal ay bus franchement force de l'ordre yi ñoo ngi defanteek jeunes yi ñoo ngi dóorante di sànnante ay lacrymogène blessures yi bëri torop torop torop franchement xam naa ne gis nga ci dara léegi léegi parce que man bi ma doon ñëw dañu bloqué woon yoon bi donc yow yaa ma woon sax yoon bi ma jaar yow yoon bi nga jaaroon rak yi wax dëgg yàlla bu fekkoon da ko continuer wéyal ko eh. di nekk ay jafe-jafe yoo xam ne kenn du xam nu mu ndax la xew ca VDN ba actuellement mm. xale ndaw su doon filmé naan ay waay ko rey dëgg la muy dinañ ko rey mm-hmm. ko gis sa yaram daw. ndax da ngay gis ay frères je l'ai dit et je le répète yuy xeex mm-hmm. seen biir. Mm-hmm. quand je parle des policiers que je parle tey des citoyens. Mm-hmm. des sénégalais des patriotes yi nga xamante ni ñoom ñooy xeex ak di euh, jàmmaarloo ak policiers yi. da ngay gis ni c'est de frères de même sang. Euh, euh, walaay Grégoire nag mënoon nañu wan. man xam naa ni. vidéo bu gën a bu gën bii ndax bii sama vidéo la d'accord bi may ñëw di liggéey si lii laa gis tombé ci <laughs> ñuy. sànni bus bi. toj uh-huh. pare-brise yëpp ak ay xeer yu mag a mag. yoo xam ne kenn mënu la nettali lu mu doon. donc là c'était euh, euh, bi may ñëw. waaye am na mm-hmm. ay vidéo yoo xamante ni peut-être. ça peut pas se passer à la télé. raison pour laquelle parce que dafa c'est très sensible aussi de voir ça. Mm-hmm. Euh, sànnante xeer bi. Mm-hmm. sànnante lacrymogène yi policiers yi di sànni ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo di jeunes yi defe naa ne looloo tax. mu doon vidéo bu sensible mais li ni mel tey. en tant que jeune naka nga ko gisee. non c'est triste xam nga la moo tax nit ku nekk am nga foofar. Mm-hmm. loolu ñun d'accord nañ ci te ku nekk am nga droit faral ki la neex. mais lépp dañ ko war a teg ci yar ak teggin. Mm-hmm. ñi jiite tamit. xam nañ ni am nañu ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam dañu leen bëgg ba gëmewuñu leen. Hmm. ñu teg leen ci yoon wan leen ni en tout cas nii la cas bi demee mais comme que yéen a ngi ànd ak man bëgguma dara ngeen déraper bëgguma ngeen def dara loo xamante ni ëllëg dina salir man sama propre image. Hmm. parce que ñaar ñi kese la ñuy tudd ñeneen ñi nekk ci ginnaaw ñëpp xamuñu leen. Hmm. te aussi mbir yi dafa rax ñoo xamante ne ni xëcca ay agresseur lañu dañuy profité di dugg ci ñi nga xam dañuy def politique. Hmm. parce que tey jii nii muy Ousmane Sonko di mambay Mbaye ñi leen bëgg dëgg taxaw pour défendre leen du ñu nekk ci mbedd bi dinaan dañuy def quoi que ce soit. Hmm. mais ñi leen di rax ñooñu ñooy jéem a di yàq donc ñoom tamit nañu bañ ñu ñi ñi nga xam ne dañ leen di rax di yàq. ñu xeex loolu ñoom ñoo war a njëkk a xeex loolu seen biir comme ça affaire yi du déraper du indi yenn problème yi franchement parce que ñu siy gaañu aussi ñoom ñëpp ñoom rek ñoo ciy perte à la fin. en tout cas euh, situation la bu difficile. Euh, mhm. xam naa ni sister boo naree toog taxaw nii dina metti ci yow toogal <laughs> toogal tuuti boo naree taxaw dina metti lool. alors euh, mhm. euh situation bi ci gën a graaw Grégoire mooy que. dégg nañu ni itam lakk nañu ñetti bus ak bii ma xam ni maa ko filmé bokkul ak dara ci bus yooyu <laughs> nga jàpp ni tey ay ndaw yoo xam ne ñoom ñooy jël bus yi pour dem ci yenn localité yi. ci yenn zone yi. bu ñu yàqee bus yi est après dinañu am. suñu euh, alal euh, lañ transport dina fa demee noonu. suñu alal la ñuy yàq parce que bus yi bu ñu xoolee suñu yaay yi ñoo ciy yéeg suñu papa yi suñu nijaay yi ak suñu rakk yi. ak ñun sax amuñu amuñu moyen yoo xamante ni pour jël taxi la wala amuñu moyen boo xamante yor nañ seen propre oto ak ñun tamit ñun ñi nga xamante ni dañuy xëy di liggéey ñi di xëy 5 heures du matin 6 heures du matin. Hmm. wax dëgg yàlla suñu alal la ñun ñoo ko moom am na nu ñu mën a xeexee neneen lu dul lakk lu dul saagante wala di doorante. Mm-hmm. en tout cas doy na waar Mangok euh, les images passent su les réseaux sur TikTok sur Instagram on en parle partout. Mm-hmm. on va y revenir tout à l'heure ñu bàyyi la rek yi nga wax nu leneen li ci toppal. alors Grégoire suñu deuxième élément bi bu paree rek nga yóbbu ñu fa. <laughs> rue, Alors, euh, c'est Didi Bi, le rappeur ivoirien. Machallah, Recha, Didi Bi, mooy mën naa ne Wally Seck Côte rek. Hmm. dafa ñëw Sénégal tourné fi clipam. franchement mu génnee suñu réalité duggal ci ay bongoman ay sabar hmm. ay. suñu culture daal dugg ci banlieue bi def clip bu nice mu def buzz sur les réseaux sociaux donc euh, ma ni woon naa ko ñëw partage ak yow loolu lan nga ci xalaat beneen star jóge beneen dëkk ñëw di génne suñuy réalité dafa ñëw clip suñu clip daal ñëw suñu dëkk clip fi clip fi daal macha allah ñi ngi ko ciy gërëm mhm. jërëjëf waaye dañoo dafa fekk ni suñu xol neexul <laughs> sa clip bi yàlla na am ay vues suñu xol neexul ñëw nga suñu réew di clip mais moment bi nga ñëwee dafa fekk ay xeex kon nag jërëjëf euh, yow daal ni ñu def lu ñu remercier la mais suñu xol neexul leneen la yow ñu <laughs> sonn ñu kenn ñu rey waar <laughs> nañ dem ci beneen élément bi mm. son bi mais le son alors vas-y commente. donc euh, Kheucha kii benn euh, waay la bu tudd Tons il est sur TikTok. Mhm. dafa def benn sortie récemment di attaquer les Guinéens. donc nee na les Guinéens il faut que ñu quitter Sénégal parce que dañ fi bëri et puis euh, amuñ fi benn njëriñ. Mhm. donc mu def loo xamante ne ni dafa créer benn bad buzz bu atroce sur les réseaux sociaux nit ñi dañ ko ñaawlu torop torop torop parce que nee nañu warul wax à la place de sénégalais et puis surtout nag Guinée ñuy suñu ay mbokk mu leen di daq di leen naan amuñu benn njëriñ ci réew mi quoi que ce soit ak bëgguñu seen réew ak yooyu noonu loolu ma lay laaj lan nga ci xalaat xalaat mooy yow lii boo ci waxuloon ma xam ni dina ñaaw ci sa côté parce que nag yow it fàttali doo sénégalais doo sénégalaise <laughs> non dafa euh. metti dafa metti ndax yow bu fekkoon tons mii li muy wax dëgg la di nga bokk ci ñuy génn <laughs> ndax say kayit matu mais man am naa fi njëriñ de ah, ah? man am naa fi ah. maa ngi fay location di fay courant di fay ndox ah di fay <laughs> <laughs> dafa doon ay situation yoo xamante ni euh, defe naa ne xel sax wala ko xalaat ba koy wax effectivement diggante Sénégal Guinée Mali Mauritanie Gambie. ay frère la ñu lenn lu ñaaw loo xamante ni ñun suñu waajur daan nañu ko ci nettali. dëgg yàlla. lu dul man de benn laaj dégg mooy ba ma nekkee ndar ñu may wax événement naari loolu moom amoon na mhm. événement naari boobu mhm. suñu diggante ñu nag yéen la woon mhm. waaye tey boo xoolee rek këcaa ñu mel ne cere nga xam ni jamono changé na yow tons bu dee danga nekk Europe ne ci sa bopp am nga say idée ak euh, loo xam ni sa xalaat la I don't know uh-huh. mën nga ko joxe. dëgg la mais boo waxee jëmmale ko ci Sénégal dugal ko ci Guinée ak yeneen mhm. région yi bul fàtte ni foo dem ci àddina rek am na yeneen doomi dëkk bu fa ne. Mhm. boo nee nañu génne Guinée yi ne Sénégal. Mhm. ah Guinée yi ñoom it mën nañu wax nañ génne Sénégalais yi nekk Guinée. wax dëgg après problème boobu nga bëgg indi noonu lan moo koy réglé ñun déjà dañu am problème. suñu problème mooy suñu politique bii rek mënaguñ ko gérer. ba léegi situation baa ngi ni xale yee ngi rayante seen biir di tojante bopp ak rayante boo ñu bëggee tegal yeneen i problème après ça va dafay déjà rek ak may waxu kilibu artiste boobu dama ne que ñun dañu am suñu propre problème nañ ko gérer ba pare <laughs> donc on peut pas s'engager sur euh. des trucs yoo xamante ni pour moi c'est insensé de parler de ça parce que c'est de l'hypocrisie quand on parle de Guinée quand on parle de Bénin quand on Guérégoire a ngi nii il est l'exemple phare Bénin la jógee bi mu ñëwee am na fi liggéeyam tey mi ngi sant yàlla am bi muy ñëw ay bëñam matul ñoom sii dee ngi nii duñ ma bàyyi ma fen defar na ay bëñam ba lépp dafa mat léegi barke alxuraan brégoire yi yëpp am ko woon liggéey na ba ñuy dem dar ba ah? ñuy dem dar dafa dindi woon bëñi waaw kay ah. loolu benn la beneen la ko daloon parce que da doon xeex foofu amuloon ay moyens ba fa daw làqu si fii Sénégal ñu jàppale ko taxawu ko mais man doo gis fenn ma toog di xarab gërë guwaat te moom fu ma gis daf may respecté parce que xam a ko bëggee noonu la ma bëggee dañuy waxante mm-hmm. bëggante wuñu rek te te est-ce que xam nga ni est que xam nga ni ñu bëri gën a ñu bëri nañ def sorti di ko tontu moom moom tontu jaru ko woon parce que jar que jaru xam nga lu tax jaru ko woon mooy uh-huh. mooy gis nañu ñu ne Guinée nu ñu mel man dama ko wax démb. c'est ça euh, gis nga Guinée yi ngay gis yu bari fii ci Sénégal. Hmm. liggéey gi ñu nangu sénégalais yi nanguwuñ ko. non pas nangu nañu daan seen doole. c'est ça mais à l'exemple Hakim Hakim quand il quand il était oh venu dans le milieu. bon en fait regardez euh, euh, il avait commencé ak TikTok booba ñëpp a karawoon. et aujourd'hui il fait partie. des des des des des des des je dirais pas. Euh, euh, mm-hmm. euh, guinéen je dirais pas sénégalais parce que moom mm-hmm. Sénégal lay la la la ko ñëpp xamee. mais il fait partie des rares africains yoo xamante ni tey. Mm-hmm. am na plus de 6 millions d'abonnés sur TikTok. macha allah c'est leur métier dañu leen ci war a jàppale gunge leen ci. mais c'est ce qui est normal. mais loolu noonu. te wax sax nag dañ koy ku ñaan ku ne da ngay dellu ginnaaw bàyyi leen di soxor ak di ñaan bàyyi leen leen ñu liggéey. wax dañ koy wodd yàqaluñu dara ah la la la la la. yeggaleel du ah? loolu la ñuy wax wax dañ koy wodd am na sax nit ku nekk am nga droit exprimer wax lu la neex de fexe ba ñu génn ñi ñi génn dina bari de ay la man booba fu ma jëm sama xarit mm. nga xam ni ay xaritu guinéen kese laa am yooyu xool bu génn doon am da ngay génn di <laughs> ah moom man faa ma xeex li toos moom yow faa ma attaqué la da day dem moo mu mën dem yéen <laughs> toog leen alors suñu suñu beneen élément bi bu paree Grégoire bañu ko donc Real Madrid dafa qualifié. waaye bu ah. suñu yoon nekku ci nag. wala nag Grégoire nag tey nag danga ma yab nag dëggantaan ah, yi ma la yónnee yëpp importance dugalal ma la vidéo de la fille qui est sur TikTok ay sàcc kese dañuy sàcc rek du ñu tiré penalty coup franc duñ ko ay sàcc képp la bu ñu bu leen sonal Real Madrid ah, ak ay Barça ak yii yëpp comme que Paris gañewul rek yow lu la neex nga wax yeneen club yi kii ay interview parce su ma defee interview ngeen wax su ma génnee ngeen wax su ma soloo ngeen wax bu ma defaree sama bopp dara ngeen wax su ma defee maquillage ngeen wax su ma defee da bañ a wax ba léegi damay bëgg dem si si yenn programme yoo xam ne du ma def maquillage. da ngeen foog nekk nag siiw jàmmi borom la siiw du jàmmi borom. ñu bëri donc xëcca euh, comme ni nga ko gisee rek xam nga sénégalais yi ndeysaan nañ taamu boo jeexee ñu ne la jeex nga boo pataayu ñu ne kii moom dafa pata donc moom récemment hmm. euh, elle était victime c'est qui c'est qui elle bébé elle c'est bébé Binta c'est une tiktokeuse donc euh, sénégalaise donc récemment dama gis mu def sortie gars yi dañ ko doon ma kow ci physique am naan ko dafa tuuti torop dafa sew donc xëcca loolu dafa war a cesser au Sénégal parce que nit ki bu sewee wala bu pataawee yoonu kenn nekku ci parfois nga gis nit koo xamante ni physique am neexu ko jéem na jéem jéem def sport pour perdre du poids mënul perdre du poids wala keneen ki jéem na naan ay comprimé ba sonn pour am yaram mënul am yaram ba parfois sax dañuy mettre seen vie en danger à cause de juste des critiques alors que c'est pas du tout normal tu vois un peu. Mm -hmm. donc tey jii nii loolu dafa war a cesser sur les réseaux sociaux ma tey lan moo ci sa xalaat franchement. il faut que les idées de Richard reviennent parce que ça va mhm. permettre aux jeunes de, de vraiment penser et de réfléchir avant d'agir en fait gis nga les réseaux aujourd'hui mhm. li ñu ciy gis mhm. c'est vraiment déplorable nit mënul nekk xale nekk tiktokeuse nekk tiktoker yow amoo lenn looy seetlu ci moom lu dul taayam c'est-à-dire dafa pata wala dafa tuuti dafa sew wala dafa dafa ngande des choses qui sont insensées il faut qu'on arrête en fait ay moquerie yi ñu nekkee ci TikTok bi laisse-moi terminer Grégoire ma ñëw. Grégoire bàyyi di ñu dugalal ay son di roube. <laughs> daa bëgg euh, man ce que j'arrive pas à mooy. Mm-hmm. nit a ngi toog di la bégal ak lu mu la mën a bégalee. Mm-hmm. yow am nga nu la yàlla bindee mm-hmm. que ça soit nga ngande nga pata nga rafet nga ñaaw mm-hmm. mais yàllaa la bind effectivement bind ki ngay xas ak di ko tuutil nit dafa am cër goo war a jox doomu aadama mm-hmm. waroo koo gis di ko lyncher ak di ko wax lu ñaaw sur les réseaux il faut qu'on arrête je parle pas de Bébé Binta mais je parle au nom de tous les célébrités au nom de tous les chanteurs au nom de tous les sénégalais lambda yi nekk sur les réseaux et que ñuy toog di wax ci ñoom lu ñaaw arrêtons ça de de parler du mal à c'est pas quelque chose boo xamante ni mën nga ci jëlee njëriñ est que xam nga ni mooy une chose boo xamante ni ci jigéen ñi la gën a bëri wee par exemple man j'ai vécu ça en benn moment tout le monde me disait da nga tuuti da nga tuuti même sax benn casting pour tourner série ñu naan ma tu es trop petite et c'est ce qui m'a motivée à faire du sport aujourd'hui mën naa sax alhamdulilah mais am na ñoo xamante ni day psychologiquement xam naa fi nga bi jëm sa regard bi dama ko <laughs> la wax xaw Sadio bi ñu nekk da nga am leel mais Sadio dafa dem jël kii bi yokkaat fii yéen loolu waru leen ko def Sadio Mané ak Sadio Mané gis ma li may wax gis nga sa noon sorewul la soo ah. xoolee sa noon mooy ki la gën a jege man dama yegsi rek xëcaani ma danga am leel waaye alhamdulilah ba sama leel bi nekkee leelu wërsëg waaw ñun boo xoolee Sénégal maak Sadio Mané kese am leel bi ah. lii xoolal rek zuma lii deux mètres. kan moo ko fi am kenn. yàlla bu ñu waxee rek nga dem ak Sadio Mané <laughs> xaw ma am yéen a ngi ciy prêter attention bu ñu waxee rek. alors xëcc nañu bàyyi moo kay. <laughs> d' yaa ko fi a def yaa ni la. Ah. Ah. Ah. rek. <laughs> sama yoon nekku ci dañu ma ne ko man ak fange ah baax na. lu ma wax. ma xoolal rek dama fange. xaw nga ko de ah. <laughs> réew mi réew mi Grégoire il faut qu'on essaie d'apaiser la situation dafa metti torop am na ñoo xamante ni ndeysaan daf leen di pousser xëcca ba ñuy dem di defi chirurgie dëgg la di yokk seen i ay forme wala di wàññi seen i ay forme parce que lan dañuy complexé ci seen yaram hmm. éviter genre ces de trucs nit ñi nga xamante dañ leen di critiquer wala di leen xas bu leen déglu bu leen xool hmm. man am na yoo xamante ne du ma ko déglu nopp garmi laa yor bëtu garmi laa yor je fais ce que je veux et ce je sens. def leen loolu et puis vous passez à chose. vivez votre vie benn yoon la ñuy dund de. après ñun ñëpp dañuy dem. ñeneen ñëw. li ci topp lan la donc euh, beneen image bi bu paree nañ dem seetaani ko Grégoire. voilà c'est terminé les donc, avec les images. Gré xam naa fa la koy yemale xam naa yeneen images yi c'est un peu sensible donc duñ ko mën a poster. ah doon ce euh, la fin par rapport à la situation qui qui de se passer tout à l'heure jëm ci euh, li nga xam ni moo waral procès Mame Mbaye Niang ak Sonko bile lan nga jàpp ne tey loolu la juge bi war a def est-ce que duñ ko annulé man damay laajte rek. non man gis naa ah ñu ne dañ ko dañ ko suspendre franchement su mënoon su suñ ko mënoon annulé ñu annulé ko buñ ko mënoon def sax euh, crachat en discrétion ñu def ko. mais y a pas un de. parce que trouver même même buy tax ñu leen woowaatee ah problème Sonko Adji Sarr problème mu Sonko Mbaye Niang. c'est ça en euh, fait euh, Macky wax nag waxul ñu jéem a xool daal ñoom ñëpp daal ci seen biir dimbaliñ te yàlla tax indi jàmm. amul solution bu am ci loolu. daa daam mi ngi may xool ak bëtu xamal loo. daam man ah da daam mi ngi may xool ak bëtu xamal loo wax. xamal looy wax kon bul wax. alors mi ngoog ñu bàyyi la nga. nañ leen di wax rek nañu téye xale nañu téye xale yi ñu toog seen kër. vu que situation bi actuellement dafa xaw a tàng torop torop torop. Mm. et puis jeunes yi nañu éviter xeex bi éviter xuloo bi éviter xiiro bi ngaayoo bi. Ousmane Sonko lañu faral nañ ko gunge ci njekk ak teraanga ba fi mu jëm mu dugg def procès am normal mu ñibbi Mame Mbaye Niang la àndal tamit nañ ko gunge moom it ci njekk ak teraanga ñu bañ taal suñu réew bañ xeex bañ a toj oto yi wala di yàq tali bi donc man ah. sama bopp bu ma benn problème yow <laughs> wala yow taxi bi laa àndal damay remercier Radia Style ci eh. eh, coiffure bi donc samay locks euh, butterfly ak waa mèche darling ci mèche bi donc euh, ñoom ñoo ma ko jox kinky twist bi ku ko bëgg rek mën ngeen ko jënd sur le marché c'est disponible merci à tous xawoon naa leen leen de euh, tey moom doo mën a wane sañse ndax fi ñu la takk noonu yeew la fa boo ko boo fa bougé dina ñaaw loolu <laughs> en tout cas li may def émission mais Kheucha yaa ma yóbbu de ba sama kër waawaa waaw je vais. <laughs> Ah, baax na. ok amul benn problème Mama Rama nga ne damaa sañse jërëjëf xam nga yow danga bëgg ay yére wolof moo tax léeg-léeg fa ma koy laal nii euh, def ko euh, nit ñi daal di kontaan je vous rappelle pour ñi may laaj euh, tenue bile dinaa leen jox numéro léegi léegi ngeen ko daal di gis sama xarit bi lan la may vocalé nii tey léegi léegi dina leen jox baaxee leen numéro bi mais je vous ko aussi. Euh, tey jile am nañu fi euh, euh, benn ndaanaan moom elle est plus découverte mais ndaanaan la ci ay mën a wayam Grégoire donc je vais t'envoyer tout de suite lien bi nga xamante ni moom am na ko et tout à l'heure on va parler aussi ci li nga xam ni moom moo di titre bi mu mujjee génne une chanson qui fait référence au produit xam naa moom tamit dana ci wax léegi léegi ndaxte wàllum xeesal ak ñoom seen mangook dégg nga ma yaa ma rek sama nit ñëpp ak may message naan ma bul jaar bee deen jaaral xaw ma fan kon kon rek est-ce que du ma dem <laughs> ñëpp may message yaa may yóbbu rek ñu bëgg ah ñi ma bëgg a bari ndeysaan kontaan naa ah maam Marème bu bu <laughs> ñi neen ma bu ko yóbbu de <laughs> ah ma bañ ko yóbbu fekk rek yow ci VDN bi nga dëkkee. ci ak ci VDN bi nga dëkkee ñi ngi xool sa yóbbu googu nga wax dinañu xool lan lañ ci mën pour def ko <laughs> en tout cas ñi ngi xool ñi ngi nga maa ngi toll ci xool bi alors euh, très rapidement ñu dem seeti euh, li nga xam ni nag moom moo di la chanson euh, bi nga xam ni moom la Dieyla euh, way di yow la yow la nag laa leen di may gré ñu daal di ko seetaan si c'est bon euh, let's go Aïcha à toi yow la bu Dieyla si c'est bon let's go yaa ngi ci sa sa téléphone di ma bind te man maa ngi lay lancé yow la te nga préparel ma fefa bi parce que moom laa invité de nga si c'est bon à toi. Mangok jërëjëf merci beaucoup euh, ñi ngi lay gërëm ci li ni mel j'espère que t'as vu euh, li ñu la yónnee léegi léegi laay le grand caméraman moom tam ña ngi koy nuyu. ma ngay tourné elles sont toutes belles salon bu yàññ boobu yéen tam euh, jigéen ñi ñu ngi leen ziar di leen jox seen wàccu en tout cas on est euh, ça fait plaisir de voir ça ah l'international le meilleur des caméramans yaa fi ne doxalal nag wax na ma ni ma yaa ngi toog di filmer lu leer yaa ngi koy naayisal yaa ngi koy jekkal ca elles sont toutes belles donc euh, ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax a baax avec ma ma sœur que j'aime bien di ko nuyu moom tam bu baax a baax plein de bisous love you ayca Khalifa, euh, qui est, a une révélation exceptionnelle, on peut xaw ma naka ngeen def nag ba ñëw nii mais yéen ku bëgg musique ngeen ak dëkk bi tàkk-tàkk ñëw ngeen gré on regarde sa yaay li mu soloon sa jour ngeen ak bi nga juddoo le 24 ñu kii wala le 31 mi ngi def effet dégg nga xale bi la xale bi classe na la dem maam. ah. classe ba ko kay. classe ba ko. yaa ko classe. classe ma ko de. loo ko wax. dama ne ko na namuñu maam Ndiaye savon kon ne ko mu jox ñu cër mais clash ma ko. c'est comme si yow nga yor sa entreprise di jaay li ngay jaay nii man ma nekk entreprise concurrente tu vois. léegi man a yow ñoo bokk li ñuy def mais damay gën a valoriser sama bopp rek di wax client yi affaire bi fii la quoi. loolu a rek mais clashé ma ko ah clashé ma la. da lay directal sax moom boo ko clashé mu directal la sax. daf live. da lay live léegi nga xam ne maam moom kenn du ko laal. mangook man nga téye sa boisson daa jël naa la ko. merci laataa ñu bàyyi la nga nuyoog teg téléspectateurs yi si vous la reconnaissez moom la bien sûr c'est Fefa Fefa ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog teg téléspectateurs yi. waaw di Kheucha nuyu naa la nuyu waa 2STV. nuyu sama waa kër sama yaay sa papa mag rakk samay jumeaux sama fans sama producteur manager tout le monde ak sama waa staff. mais bien macha allah c'est une très belle chanson. merci euh, beaucoup lan nga ci wax noonu ban naan la cam cam bëgguma loolu léegi man may jàpp cam cam bëgguma loolu. nga way ko ah. am jëlalu weex tàll baa ngi. cam cam bëgguma loolu. ma yow xanaa bëggoo mel ni tubaab. cam cam bëgguma loolu. Eh, bi boo koy diwoo di xees pecc. cam cam bëgguma loolu. ki ñàkk na kese di xay. cam cam bëgguma loolu <laughs> ah, loolu nga ci doon doon xas. non xasuma leen. ah non si dama leen di sensibiliser. am jëlal wax tàll baa ngi ni cam-cam bëgguma loolu cam-cam bi kay xas nga leen. non xam nga feefaa nag assume. <laughs> assumer de parce que xas nga jaaykatu diw yëpp yow. non xasuma leen léegi je vais m'expliquer. voilà vas-y yaa ngi dégg. <laughs> de c'est juste de valoriser son teint naturel. yaa ngi dégg. voilà xam nga nit mënoo ko forcer. <laughs> xam nga nit mënoo ko forcer naan kaan bul xeesal. Hmm. mais mën nga gis par exemple tey jii fenn foo amul ndox nga ne sa sa benn xarit par exemple fi nga jëm kat amul ndox. tu donc xeesal ñëpp xam nañ conséquences yi si nekk euh, mucc bi euh, fi mu jëm amul amul amul ndox daal xaw ma laa ko mën a waxee solo sama wolof nag da ngay ree ba tas hmm. voilà donc xeesal amul mucc après si fin son bi maa ngi naan su fekkee góor a tax ngay def xamal ne bis boo ceree si beneen jigéen lay dem te bu boobaa fa lay reeree donc c'est toi la grande perdante dans toute l'histoire jaru ko surtout fekkee góor yaa tax ñu koy def jaruñu ko quoi benn instant nit da ngay gëm sa bopp la confiance en soi est primordiale.

du ma ko wax kenn du africain quand tu lui son âge il veut pas. Ah, en l'âge de la femme ça se demande pas tout simplement. gis nga man procureur la merci gën a goor. mag merci gën a moo la mag nga procureur Fefa gis ni mu waxee gën a goor macha <laughs> allah macha allah macha allah euh, euh, cette chanson. Mhm. d'où vient l'idée da gis ni taay diwi ñi ciy wax moo tax nga bind ko wala c'était une idée. de ta part depuis que tu étais jeune. depuis depuis depuis mon enfance effectivement. depuis ton enfance. Uh-huh. da nga daan nit ñi di xeesal ak ñoom seen. voilà aujourd'hui ak buzz bi muy def sur les réseaux nga ni je vais en profiter quoi. exactement. ok et puis Mame Ndiaye Savon tamit euh, parfaite. bu yeboo nga xam sama xarit la te nga bàyyi ko nag. non xam naa ne sa xarit la ah, recevoir nga ko fii. mu xaritu ñëpp la nag de man euh, mise à part tout cela dama ko admirer. parce que faykat la xol bi dafa rafet ba pare. liggéeykat la tamit moo a <laughs> la donc ba ma nekkee xale xam nga boo jàngee esclavage xam nga affaire yooyu léegi ba ma nekkee xale la idée bi ñëw sama bopp man tout ce qui euh, taraudé dans mon esprit mooy lan moo tax. ñun ñuul ñi di xeesal mais ñu xees ñi jamais ñu ñuuloon en fait lan moo tax ñun ñu war leen fekk si si ñoom luñ nekk alors que ñoom duñu fekk si jamais si ñun luñ nekk voilà donc man loolu benn benn kii la woon benn problématique la woon moo doon posé mais doo ko xool naan ko ñuulalal pour moom ñuul baaxul voilà dëgg la noonu la fa demee nag moo tax ma ne euh, ak jamono ji nu mu demee ñëpp ñu ngi changé seen peau xam nga nit yi di manqué confiance en eux de jour en jour affaire bi di gën a dem ma ne bon xaaral ma woy si lii sensibiliser euh, d'ailleurs am na yeneen tam yu ñëwaat c'est pas seulement der bu ñuul moo fi nekk am na yeneen son yu ñëw yoo xamante ni euh, c'est voilà macha allah macha allah et ce thème là ça peut faire quelque chose parce que na qu'on puisse dire actuellement ça fi l'actualité de voir les jeunes filles amoon teint noir des fois nga gis ay jigéen ñu ñuy jël di leen collage en 2021 2022 doo leen xàmmee ndax dañuy diwu ba changer seen peau euh, changer seen yaram defe naa nag aussi euh, euh, ñoom ñoo am choix bi kenn du leen ni leen lu tax ngeen def ko ndaxte nit ku nekk nag tu es libre de faire tout ce que tu veux parce que sa liberté may na la nga xeesal comme que nag ñoom loolu leen bëgg defe naa bëgg mais yow nee nga doo xeesal. non man moom euh, je reste naturelle. Okay. voilà man nu ma yàlla bindee rek parce que tout temps je me dis que nit da xool tout le temps ñi nekk sa ginnaaw maanaam da ngay xool ñi nga tane pas ñi nga xamante ñoom nga bëgg a mel. a mel ni ñi après tu te gourres parce que soo duggee si loolu noonu tey jii nii parce que lu ñu naan lu dul dëgg du yàgg. Mm. soo demee changer sa yëf après euh, chasser le naturel il revient au galop. d'accord voilà c'est ça donc. Euh, passe ay thèmes rek ah maa divertissement yi aussi. voilà mais bon man dama dama comme euh, le Fab je comme Jean de La Fontaine je peux dire. da mën naa ne damay way mais si kaw way bi euh, je te divertis et je te donne des leçons de morale si possible. am na benn partie boo ci way anglais. Black is beautiful loolu wax. ah ne rek Black is beautiful. Oh, black is beautiful loolu wax. ah ok ok good I like the your accent. comme la waxee woon la fois passée tu chantes bien. may ñu benn benn benn tonalité avec ta voix par rapport à cette chanson genre pas euh, pas pas cam cam bëgguma loolu mais genre nga wayal lu ñu xool. d'accord xanaa ma wayal leen euh, générique bi ma def ci déchéance. vas-y voilà donc. ndama xëyoon xam-xam yëkkati ma jógee fu ma may dox dem. ñu ñëw daaneel ma may bëgg ñu bañ tooyee ma li ma fi gis jaaxal na ma kuñ dem ñu ñëw kar la sama yoon wi moom diis na sama coono ba kañ la sama coono ba kañ la wutuma lu yomb ñàkk lor na fu ma mën a dugg seytaane topp ma ku jël sama loxo ngir yàlla wàllu ma maa ngi fatt man nooyatuma bëgguma zanku bëgguma daanu bëgguma gaañu ñëwal ma bëgguma zanku bëgguma daanu bëgguma gaañu ñëwal ma Il a une très belle voix, Fifa, elle chante bien et juste, machallah, magnifique sa voix, sa façon de parler et la chanter la nouvelle chanson concernant li nga xam ne moom moo di pigmentation ñu ngi ko ci kontaane moom tam nuyu ko ci bu baax euh, avant ñuy tàggatoo naka nga gisee situation dëkk bi tu es politique à politique tu fais quoi. <laughs> man moom d'habitude jamais je n'en parle mais daal xam naa ne daal. Hmm. affaire de Sonko a Sarr Mame Mbaye Niang yàgg na a yàgg na parce que man je me capable boobu amaguma sa licence waxaguma sax wax def musique temps yooyu. donc man euh, je vais bientôt faire un an ci musique bi. temps yooyu xalaatuma sax def musique. Okay. donc maa ngi ñaan euh, autorité yi ah. qu'on passe vraiment à autre chose parce y a des non sonn ma si yoon bi nag sant yàlla. <laughs> ok macha allah sant yàlla voilà mais xam naa sa yaay wala foo toll waa kër ga wowuñu la. non non non ils n'ont pas paniqué ni naan panique panique ils n'ont pas paniqué. ils n'ont pas paniqué quoi <laughs> mais sant yàlla yegg si nga. sant yàlla agsi naa si jàmm donc ni ma ko doon waxee rek nañu franchement il est temps de passer à autre chose quoi il des choses beaucoup plus importantes telles que des thèmes comme l'éducation la pauvreté ainsi de suite quoi am na thèmes yu gën a am importance yi ñu nekk def nii dafa jot ñu nekk si leneen. voilà leer na dëgg jërëjëf merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi. Mhm. jox nu dig daje ak euh, ñi bëgg a seetaan euh, titre bi léegi léegi nag la ñuy def. waa euh, dañuy dugg internet sur YouTube ñu def ñu tapé Derby Ñuul Fefa ils peuvent également maa ngi leen wax également ils peuvent me suivre sur Instagram TikTok ñoom ñëpp mën nañ suñu tapé Fefa l'officiel rek fu ñu ma bëgg a suivre rek dinañ ma fa suivre maa ngi nuyu sama producteur maa ngi nuyu sama manager. sama yaay sama papa ñi ma ñi ma ñi ma nuyu woon ci commencement bépp maa ngi leen nuyu waat ci fin bi voilà di remercier euh, sama staff di le remercier également ci invitation merci. voilà c'est c'est un c'est plaisir c'est pas donné à tout le monde c'est une grande chance donc euh, di remercier ñëpp daal di leen wax Fefa mi ngi ñëw après koor gi nañ ñu xaar incha allah rabbi. merci Fefa après koor gi dinañ la xaar xamuñu loo indil mais na neex comme euh, ce clip qui vient de passer tout à l'heure merci on te remercie la petite Fefa qui a que à 15 ans donc ñu ngi koy gërëm di ko ziar bu baax a baax Sista Diha sargal jigéen on va regarder cette chanson et

mangoog way wu neex la macha allah si sa di xaa ñi ngi lay kontaane nuy la bàyyi la nga nuyoonteeg téléspectateurs yi Euh, téléspectateurs yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi jël seen temps di ñu suivre di dooleel di Kheucha l' animateur du peuple par le peuple et pour le peuple comme ni ma ko waxee woon yaa fi ne yàlla dafa def dama laa bëggal sama bopp tey la ñuy door a gisee mais yàlla na yàlla yàggal ànd bi di nuyu sama <laughs> ba tey même yére bi sax soo bëggee waaw loolu laay def loolu cadeau la c'est fait jeex na kontaan ci yow même ak oh. montre bi montre <laughs> <laughs> nee na ma ak lan loolu doy na